إيتم spécial rentrée des classes ah but école bi c'est une société Cipex, une société industrielle papeterie express Bou Sénégal am équipe dynamique te qualifiée à 100 à jeunes sénégalais jeunes machines machine industrielle de la haute technologie di proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la SIPEX une boutique agréée librairie papeterie Mohamed Bourguiba LPM Sandaga LPM LPM Koloban, LPM Kaulak, LPM Tilène, LPM Kurmasar. Hello Partenaires, GBIS mou GBIS Kaulak, LPM Boun, Centre Commercial Al Maktoum, la CIPEX et la LPM, toujours au service du social, les commerçants et grossistes. Pour tout renseignement, contactez-nous au 77 633 21 24 ou le 77 571 07 02. ak mairie municipalité ministères yi ak ñi nga xam ne ñooy bon volonté yi bëgg a jàpp ci jàng bu xale yi ngeen ñëw ñu jox leen ay kaye ci ay njëkk yu yomb ngeen dimbali xale yi ndax éducation mooy defar réew ne moom mii lañ ko santoon waaye moom moo ko wóolu mu ñëw pour wax moo ko wax mu wax tabaarakallaahu moom xëy na ci sëriñ ba moom xëy na fa tabaarakallaahu xëy na ci sëriñ ba jóge fa du ñàkk lu sëriñ bëgg ku ko waxal te maag moom booba fekk wax nañu ba pare ne te du ñàkk bëgg sëriñ ba bëgg na lu ñu ko waxal te moom mii ak moom benn rek ci kàddu gi jóg waxoon nañu ba pare bërki démb waxoon nañu nag ñoom ba pare bërki démb moo tax ma ne comme que moo mujj ci moom moom comme mu ni nag si Habib mii moo mujj ci waajuram ñun ñëpp suñu kilifa la ñun ñëpp nag sunu kilifa la. ci wàllu yëpp ci wàllu yëpp. ci wàllu ci wàllu yëpp nag. éducation. éducation. lépp lépp loo xam ni daal ci daara ji la. ak feneen ci mbokk gi. sunu kilifa la. te itam euh, euh, du am kersa ci wax la ko. nee te it nag moom du am kersa ci wax la ko. dina la ko wax ba pare baalu la xaq. dina la ko wax nag ba pare jox la loxo baalu la xaq. xam ni wàccoo na ak boromam. xam ni moom wàccoo na ak boromam. ngeen ñaanal ko bu baax. moom Sidi Bakar sëñ Babacar Abdou Aziz ne ñu ñaanal xalifa bi bu baax a baax. waxuma ko nag ngir li ma bokk. déedéet waxu ko ngir li mu bokk ak moom. dafay njëriñu jullit yëpp. daf moom sëñ Babacar Mansour xalifa bi dafay njëriñu jullit yëpp. wala nga ni ñëpp mbindeef yëpp. wala sax nga ni mbindeef yëpp nee dëgg moom ko fu mu ko dabe mu taxaw wax ko kam ko war a wax wax ko nag ak ka nga xam ni war na ko koo wax jox ko loxo yamu ca de ni ko baal ma wan ko ni du yebeel wan ko ni ko lii ma la wax nag du yebeel de fekke rek la fekke rek la te fekke muccul te fekke nag muccul tabaarakallahu lii mu ne li mu yéene yàlla na ko yàlla mottali mottalee rek. bu ko yàlla mottalee rek. Sénégal yëpp xaj ci. Sénégal yëpp ci. ndax ndax moom Seydou Bakar. xolam yamul rek Tiwaawan de. xam na ni. xam na ni. alxalqu. alxalqu. kulluhum ayaanullaay nit ñëpp mbindeef yëpp. yàlla rek la. moo tax moom Seydou Bakar xalifa bi. doo fekk mu toroxal kenn. yëkkatiwul boppam it ci kaw. déedéet yëkkatiwul boppam teg ci kaw kenn. waxuma ko nag ngir lu ñu bokk. waxu ko nag ngir moom li mu bokk moom de. dëgg gu ñu gis ci moom rek. dëgg rek la goo xam dañ ko gis ci moom. alxaqu. alxaqu. alxaqu. alxaqu. an yu taba. an yu taba. dëgg rek. dëgg daal. moo mat a topp. moo mat a topp. moom buñ ko nangoo. moom buñ ko nangoo. moo fi mujj. moo fi mujj. buñ ko nanguwul. ko nanguwul it. moo fi mujj. moo fi mujj. muy dëgg. muy dëgg. ne kon daal lii ngeen wax fii yëpp yàlla na leen yàlla dimbali képp kuy dimbali daal yàlla dana la dimbali kuy dimbali yàlla yàlla dimbale la yàlla dimbale la te dimbale yàlla mooy dimbale jaam yi yàlla nag mooy dimbali jaam yi rek ne bàyyi ngeen yéen seen soxla yëpp ñëw fa tabarakallah ñëw ngeen pour Tivaouane ñëw ngeen sax naam pour Tivaouane waaye pour Sénégal gépp waaye nag pour Sénégal gépp ndax xew-xew bi ndax xew-xew bii kat xew-xew xew-xew képp kuy wax laa ilaha képp kuy wax laa ilaha illa allah muy juddug Seydina Muhammad muy juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daje ak seen i yéene ci defar mu daje nag ak seen i yéene ngir defar dëkk bi lañu nekkoon ci la ngeen nekkoon nag waaye mu tombeeg lii waaye mu tombeeg lii buntu bi gën a yaatu buntu bi gën a yaatu yal na leen ko yàlla may ngeen mottali ko ne li ñuy wax in tansurullah yansurukum yàlla nee daal képp koo xam ne kii dimbali na ma man yàlla ma dimbali la dimbale yàlla ci jaam yi waaw dimbale yàlla ci jaam yi mooy soxla yi nga xam ne mu ngi jublu soxla yi nga xam ne mi ngi jublu si rek yëpp rek. yëpp rek. amal yéene bi. amal yéene bi. yàlla daf koy fay. yàlla daf koy fay. amal yéene bi rek te sabablu. amal yéene bi rek te sabablu. yàlla. yàlla. yéene lay fay. yéene lay fay. wala jëf lay fay wala jëf lay fay. yéene yéene. li nga yéene yëpp doo ko mën. nee li nga yéene nag lépp doo ko mën. waaye moom mën na lépp. waaye moom sunu borom subhanahu wa taala mën na lépp yal na la yàlla jàppale. yal na leen yàlla jàppale jéey. Euh, ne sa maam Mansour nag waxoon na sa maam Abdou waxoon na sa maam Abdou ni ko laa tantafit laa taltafit bul geesu bul geesu de mu ñu ko waaw lu tax mu ne ko innal karima xayruhu mu ne ko innal karima xayruhu xayru xayru xayru xayru xayru ne loolu fiir ca la ko góor daal dafay fiir ci la ko tax jóg. lu nek di nga ko deg lu nekk di ko bul tal bul tal la yàlla jàppale. ñun ñëpp ñu bok tal loxo jàng fatiha salaat al faatihi. ayat al kursi. lixlaas falaqi ak naas. tëjee ko salaat al faatihi tëjee ko yàlla. ko yàlla. yàlla nañ ko yàlla nangul. defal nu ko hadiya ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sunu mag ñëpp rek ak way dawee jullit yëpp ñaanal ko yàlla nag liggéey bii mu song liggéey bii mu song yàlla na ko ci yàlla defal ndam yàlla na ko ci yàlla defal ndam boole ko ñun ñëpp nag boole ko nag ak ñun ñëpp nag yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def kenn ku nekk kenn ku ne la sumb la nga sumb yàlla yàlla may nga àggale ko yàlla na la yàlla may nga àggale ko bu ca ngaañ nekkee bu ca ngaañ nekkee ko yàlla wëlbati. yal ko yàlla wëlbati. def ko muy barke. def ko muy barke. ndax yaa ngi dégg ma naan yubaddilu laahu sayyi'aatihim hasanaatin yàlla day fekk kuy def lu ñaaw mu wëlbati la mu doon def. yàlla day fekk kuy def lu ñaaw mu wëlbati la mu doon def def ko lu rafet. ñun amuñu yéene bu bon boobu ga ne amuñu nag yéene bu bon boobu ga du ñu fi toog ñëpp ñu fi toog nag ñëpp. comme que yàlla dimbale noonu. comme que nag yàlla mooy dimbali noonu. rawatina nag ki jëm ci moom rawatina nag ki jëm ci moom leen yàlla dimbali yal na leen yàlla dimbali amiin yàlla bu leen yàlla seetaan yàlla bu leen yàlla seetaan yàlla bu leen yàlla seetaan yàlla bu leen yàlla seetaan maa kii nag ñoo dëkk xam nga dama koy ne kii nag moom ak monsieur le maire Diop Sy ne ñoo dëkk xaw ma da koy mbëkk xaw ma mbëkk yàlla ko yàlla jàppale mais waaye moom tam yàlla na ko yàlla jàppale lii daal ndam li ci yàlla digee ne lii daal ndam li ci yàlla digee yal na ko yàlla yal na ko yàlla defal kuy ñaan yàlla nag doo am kuy ñaan yàlla daal doo am ñaari xel danga naa man daal am naa rek xanaa muy lu bon xanaa nag muy lu bon ñaanee lu bon moom wa mooy ña boo ñaanee lu bon moom yàlla seetaan yàlla seetaan waaye bu dee lu baax waaye bu dee lu baax nga am ko nga am ko yéene ko jaam yéene ko jaam yàlla yi tansurullaha in tansurullaha yansurukum yàlla ne ku ma dimbali ma dimbali yàlla leen yàlla jàppale amin yàlla ne waaw ay ca nangu leen ñaan بوك جانغ فاتحة نين ني بوك جانغ فاتحة صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة آية الكرسي آية الكرسي بإخلاص فلق قل هو الله أحد فلق الناس تجيكو بين بير صلاة الفاتحة صلاة بوتي ولا صلاة بوتي وايو رك نجاموكو يالله نجاموكو يالله دفكونا هدية كيني تخرجوا مسيدنا محمد مسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيان يالا سين ييني نيان يالا سين ييني يالا كو يالا موتال يالا كو يالا موتال تي بارك رسول الله بول نكو نك نين ييب نيكو تي ام ييني رك يالا كو يالا يالا كو يالا موتال واخ لين امين نيان يالا نك نيكو نيان يالا نك دوني ناخ دانا دو واخ نيت وا من داخ نيان غي ماي نيان يالا دينا ام da nga naan am naa. da nga naan man daal am naa. bu dee lu rafet. bu dee lu rafet. man daa bi di alal. yaqiin. fi jabdi ma raama minal. matin. ndax danaa am daal. ndax danaa am daal. buñ ko seq ak yàlla. bu ñu ko seq ñun ak yàlla. buñ ko seq ak sunu morom. nañ bu ñu ko seqatit ak sunu morom. nañ ko seq ak sunu nañ ko seq ak sunu morom. ndax day am di ñàkk. ndax moom sunu morom day sunu morom day am di ñàkk. yàlla nag yàlla nag moom. déedéet am rek la dëkk ci am rek la dëkk te nag ay milliards bu amoon ay milliards nga ni doyal naa dootuma ñaan nga ni doyal naa ñaan yàlla dootuma ñaan yàlla mu mere la yàlla mere la kon kooku bëgg na joxe waaye kooku bëgg na rek a war a joxe amin wax leen amin foo way toll na ni amin defal ko ndam defal leen ko ne yàlla defal leen ndam defal na ñun ñëpp amin ya rabbal alamin librairie papeterie Mohamed hello partenaires nous sommes ici sur l'avenue Cheikh Anta Diop en face de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar c'est la rentrée des classes ça y est c'est la rentrée des classes ça y est, c'est la rentrée des classes. Vous avez besoin de quoi pour vos enfants Venez chercher des classes. Vous avez besoin de quoi pour vos enfants Venez chercher vite. Il y a tout pour vos enfants. Il y a tout pour vos enfants. C'est la rentrée des classes chez Hello Partenaire. Alors, pour cette rentrée, Lungen sort le fourniture pour Sénidum, librairie Papeterie Mohamed. Hello Partenaire. Ici, à l'avenue Cheikh sur l'avenue Cheikh Anta Diop, à Sénégal, ba Bassandaga, partout. C'est la rentrée